réew mi nag moo toll foo xam ne képp ku waxul jàmm walla doxoo ci liy tax Sénégal jéggi situation bi ñu nekk yaa ngi liggéey ci luy suuxal Sénégal te ku ne war na xam li waral coow li Sénégal élection bu ñu dàq kenn newul élection du am doomu Sénégal yaa ngi waxtaan seen biir loolu dafa warul jar ñu ñuy ngawti ngawte ci àdduna bi lu ne jàppal bàyyil Sénégal jàppal bàyyil mel nu àdduna buy tukki président de la république nee na duma candidat wutatuma mandat le 2 avril ma jeexal sama liggéey damay dem sama yoon waaw ah, loolu loolu war na tax coow am ci réew mi loolu war na tax coow am ci réew mi date bi président moo koy déterminé parce que décret mooy fixer dat des élections yomboon na ma lool ma toog ne date bi nangam la te su boobaa ku mu neex ku mu naqari foofa ngay dem parce loolu loolu mooy li am waaye dama ne du ma fixer date te tooguma ak réew mi déglu waa réew mi déglu candidat yi ci cette diversité am na candidat yu ñu jàllale am na candidat yu ñu téye am na ay parti politique am na candidat yu ñu éliminé am na ñu d'accordul ci li xew am na ñu ci d'accord kon kay li ñu war mooy toog waxtaan suñu biir jiital réew mi jiital intérêt réew mi président bu nekkul candidat newul damay toog bugguma sax fekkee élection fekkee dëgg la ñuy wax waaye nag réew mi mënuñ ko sànni foog ñu xool nuñ koy doxalee dañu dem ci élection fal ki ñu war a fal ci anam yu leer yoo xam ne Sénégal day continuer jëm kanam